alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu feetu bi lislaam diina ju maandu la àndut ak tooñ ci lu bari wala ci lu tuuti wallahu laa yuhibbu zalimin yàlla bëggut tooñkat yi ñi ngi ñaan yàlla di ndokkale waa senegaal yépp yàlla gën fee saxal lislaam képp kuy yëngatuuti ci Sénégal rek bëgg nañ nga joxe image boo xam ne dafay wane image bii image lislaam la danaa ci occasionnale waxaale suñ jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw ci conférence boo xam ne conférence islaam la lislaam lay oote ñëw ak boppi neen ñëw sa yaram di génn loolu nañ ko bàyyi ndax soo demee ba ne jullit nga soo ko defee ca biti sax loolu xëy na waaye dem ba ci mbooloo moom xam ne mbooloom lislaam la nga ñëw ak boppi neen kawari neen muuroo sa yaram mel ni ku jëm ci benn fanaal walla ci leneen lu uuteeg lislaam walla ba baa ngi nii waxtu woo leen gisee rek xam ne ñii ñi ngi représenté seen diina ji ndax danañ sol comme nit diine ji tërale duñ fa dem mukk ay ay courte robe ak ay boppi neen déedéet duñ ko def foofu bay Niass nit laaj na ko benn journaliste laaj na ko ne ko ndax nit ku sol courte robe su ñaanee wiir de tijaan da nga ko may mu ne waaw waaw ellante ñuy sol courte robe yëpp ñëw jël jël tariqa tijaan su fekkee li ñuy def bàkkaar la danañ wax astaghfirullah ci suba wax ko ci ngoon yàlla baal leen hmm? waaye nag lam daa wax ci meteel maanaam su firee alquran ba firee alquran jeex su la tegee kaala gi mu ne dafa lay wax ne kaalaag yonent baa ngi noonu ci sa kaw bopp bi fépp foo xam ne su fi yonent bi nekkoon duñ ko fa gis buñ la fa gis loo xam ne su bi nekkoon du ko def bu buñ la gis nga di ko def moo tax ñi ngi ñaan yàlla suñ jigéen ñii di fréquenté oote jullit ñi wala conférence islamique yi ci àddina bi waxtu wuñ ca teewatee ku leen gis rek na xam ne ñii ay jigéeni jullit lañ waaye bu ñu leen gis mukk di laam-laamee ah kii de muuruwut ci lu ko dal benn duwut jullit wala benn li lislaam jàngale faalewu ko te loolu war nañ koo teet ñu ngi ñaan yàlla yàlla def réew yàlla def jàmm ci suñu réew